ministère affaires étrangères ak yeneen ak yeneen shérif mu mel ne yëf yi dafa doy waar. Hmm. doy na waar ndax tudd nañ ci ab adjudant chef Mamadou Lamine Ba nekk ab gendarmerie ba ci Assane Ndione ñaari alkaati kon ñu tudd leen ci trafic boobu boole ci nag homme d'affaires bi di Limamou Laye Seck soxna naata muy loo xamante lu yéeme la et comme nin ko ni ñu waxee fi mu toll moom dereb Sénégal yàqu na ci àdduna parce que bu ne buy tudd passeport diplomatique ba bu nga ni këyit gi amatul valeur ci àdduna dem sax déjà ci aéroport ñu koy xool di ko xoolaat loolu lu jar a taxaw la te buñ fàttali ko président Macky Sall bi mu doog a ñëw au pouvoir en 2012 na woon dina setalaat ni koy joxee indiwaat ay réformes sax mhm. changement yi moo taxoon euh, Abdoulaye Wade joxoon na fi ay kilifa diine jox ko fi yenn notable ci réew mais ñoom ñëpp yu ci bëri dañ ko récupéré nanguwaat ngir xoolaat mais lii ñu gis ni tey ñi ngi woon ci député yi jógeegoon ci ñu tuddaat ci ñi mhm. entre le ministère de la savoir que la justice mi ngi ciy def travail mm. mais li am solo am solo mooy lii jar na taxaw seetlu parce que boo xoolee ñin ciy tudd it loolu day waral c'est vrai ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon au cœur de la mafia nekk ci euh, institution yooyu mais je pense que ñi koy nangu aussi ñoo it ñu dañ ca war a taxaw mm. parce que bu fekkente ne wàllu trafic la kin corrompre ak kii corrompre ñoom ñëpp benn. ñoom ñëpp benn ñoo yam àtte je pense que bu ñu condamné ñi nga xamante ñoo ko def. tudd nañ ci ay personnalité libération tudd na fi ay joueurs yu mel ni Kara Mbodj. on a mm, parlé de Fabien Ferio di tudd ñeneen ñoo xamante ni dañ doon joxe ay xaalis pour dem comme ni ñu ko defee ci wàllu tukki. loolu jar a euh, taxaw la parce que passeport diplomatique texte yi leer na ci ñi ko war a am ak ñi ko war da am. je pense que ñi ko war da am amul droit dem di ko wuti feneen surtout ci anam yoo xamante ni jaaru yoon ba derab Sénégal di ci yàqu parce que tudd nañ ci ay personnalité par exemple boo xoolee ku mel ni Seck nga xam ne il n'a rien à voir ancien président de l'Assemblée nationale la am ko xam genre usurpation la dem tudd turam ambassadeur Falilou Kane bi nga xamante génn àdduna ci atum ren bi am na ñoo xam dañ doon bubboo turam aussi c'est ce que par exemple le gendarme a dit moom mi nga xamante ni moom mooy assistant aide de camp président de la république je pense que ñu ci tudd ay personnalités yu doy waar yoo xamante yoon moo ko war a def liggéeyam nag mm-hmm. te buñ taxul ñu fàtte suñu suba la leen procureur war a déglu waaw scandale bi bu mu tax ñu fàtte boobu parce il faut que justice tëddee njaaxaanaay ñu bañ a sacrifier kenn ñu amul doole wala mu doole ay député lan li yoon war a def na ko def mm. ñeneen ñi aussi yoon li ci war a def ñu def su ko defee kon lii ñu leeral ko mu leer nañ te mu bañ a amati ci réew mi ndax darab Sénégal yàqu na ba faw euh, Marcel euh, démb ñu ngi dégg benn kilifa euh, muy wax ne même États-Unis sax boo demee seen passeport diplomatique ñoom tamit dañ koy trafiqué trafic bi yamul Sénégal mais est-ce que loolu tam du excuse wax parce que du man dong bokkuma ci voilà voilà surtout que bon euh, yeneen réew yu mel ni comme États-Unis ak France itam yeneen fléau y foog naa ñu ëpp comme ay corruption ak ñi di mel mhm. et pourtant bu ñuy comparer suñu bopp du ñu comparer je pense euh, ci ci wàllu boobu noonu mhm. euh, léegi kii mel ni Boubacar Seye nga xamante ne il il dirige organisation mel ni Horizon sans frontières keroog bu ñu koy rencontrer mu ngi mu ngi proposer pour ñu annuler en tout cas provisoirement Euh, processus délivrance euh, passeport diplomatique yi. Euh, je pense que fu mu nekk nii c'est la seule solution. pour mën a fexe ba en tout cas le temps que yoon def def liggéeyam. pour ñu mën a élucider affaire yooyu parce que ça devient de plus en plus grave bu ñu demee ba ci comme ni ko Chérif waxee jóge ay députés léegi dugg ci présidence de la République ay membres yoo xamante ni ils sont carrément rattachés à cette à cette institution là donc lu jara jara xool la donc liggéey bu mag a mag mooy xaar la justice et on espère que dinañ dinañ yemale ñëpp sur. ce euh, par, par rapport à ce dossier là. Mhm, tëddee njaaxaanaay ci euh, wàllu woowule merci euh, beaucoup. Ah, kan man mii man aw ma sax passeport fa <laughs> <laughs> bay am diplomatique. <laughs> parce que moom doon na laaj na leen def am ci mën a ko jaaral ci yoon fan yii jaar pour nga passeport. man ak fàtte ne amuñu sax passeport bàyyi ñu dañuy jàll. man may waxal de waaye yàlla baax na. man maa lay waxal yow noppi rek dañuy jàll ci beneen rubrique muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.